الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi di Yeesu Kirist asalaamaaleykum sunu mbokk yi ñuy déglu ci sunu programme kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu programme bi di sant yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mi nga xam ne moo ñu may ba ñu mën ko tal ba teew fii tey jii ñu leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam te di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu ak ku ñu dégluwul di ñaanal ñépp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo fii ci biir Sénégal ak yow mi nga xam ne yaa ngi déglu programme bi émission bi gox gi nga nekk ñi ngi ñaan yàlla sunu boroom mu wàccee fa ay yiwam ñi ngi ñaan yàlla sunu boroom mu wéy di leen jàppale mu wéy di leen won boppam mu wéy di leen teg ci yoonu njub ñi ngi koy ñaan ci turu sang bu tedd bi Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mbokk yi ñuy déglu sunu waxtaanu tey nag fii ci kàddu gu sell gi dañuy jël waxtaan bi lal ko ci loolu nga xam ne moom la ñuy woowee pak moom la ñuy dippee pak jamono yi nga xam ne nag ñi ngi ci jëm mooy jamono yi nga xam ne mooy jamono pak dañuy gis ne am na waa kër yoo xam ne ñoom lañu gën a séntu ci pak ñoom ñoo koy gën a màggal muy sunu mbokku chrétien yi sunu mbokku catholique yi taalibe Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di màggal pak di ko màggal ndaxte dafa bokk ci yooyu nga xam ne bés yooyu nga xam ne bés yu am solo la ba tax na bu pak daan ñëw gis ngeen ne am na yu bari yoo xam ne ñi bokk ci njabootu Seydina Isa almasi bi dañuy def seen kémtalaayu kàttan ngir bés boobu nekk bésu naflaay nekk bésu mbokkoo nekk bés boo xam ne dañ koy màggal bu ñuy wax nag pak dafa am benn solo boo xam ne daf ko am solo boobu nag ci laa bëgg waxtaan ak yéen tey jii bu ñu bëggee xam nag lan mooy solo pak fokk ñu dellu ci téere bu sell bi fokk ñu dellu ci li nga xam ne moom la yàlla sunu boroom aji sax ji wax mu jëm ci pak ndaxte pak yàlla sunu boroom moo ko sabab booy xool pak fi mu soqee ko ci yàlla sunu boroom la waaye balaa may gën a jóox ci waxtaan bi damay bëgg ñu jàng benn saar bu am solo bu nekk ci téere bu ñuy dippeel waa Corinthe mu nekk ci kóllëre gu bees gi ñuy wax Nouveau Testament mu nekk ci aaya juróom saar juróom ñaar foofu yàlla sunu borom di wax naan Christ Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ deyal nañu ci bant ba mel ne mbote mu ñu rendi jébbal ko yàlla ca màggalu bésu jéggi ba kon ma baamtu ko waat ci téere bu sell bi yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ci xaaj bi ñu jagleel waa Korent ci aayu juróom saar juróom ñaar nee na Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist deeyal nañu ca bant ba mel ni mbote mu ñuy rendi jébbal ko yàlla ca màggalu bésu jéggi ba saar bi nga xam ne jàng nañ ko ci téere bu sell bi yàlla sunu boroom mi ngi jël mbir moo xam ne mës na xew ci jamono xewoon ci biir banni Israël bi leen yàlla sunu boroom yónnee góorug yàlla goog nga xam ne moo doon Musa mu ñëw jàmbaarloog Firawna am na loo xam ne xewoon na fa yàlla sunu boroom jël loolu nga xam ne xewoon na ci jamono jooju di ko méngale ak faatuk Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist ci bant ba moo tax ci saar yi nga xam ne jàng nañ ko léegi yàlla sunu boroom di ñuy wax kat ne Yeesu Kirist moom nga xam ne dee na ca bant ba mi ngi mel ne mbote mi ñu mësoon a faat ci bésu jéggi ba lan mooy bésu jéggi ba ak fan lañu yàlla sunu boroom delloo ngir ñu gën a xam lan mooy solo pak bi nga xamee ne yàlla sunu boroom soob na ko mu ne danaa goreel bani Israël dafa yëkkati ab góor ab góorug yàlla muy Musa ak Aarona mi nga xam ne moo doon rakkam mu yabal leen ci Firawna ne kat dem leen ngeen wax ak moom boo leen yeggee ci kanamu Firawna nee leen ko yàlla aji sax ji moo ñu yónni ngir nga bàyyi ñii nga xam ne yaa ngi leen tënk ci buumu jaam bi Musaa ñëwee ak Aarona fekk ne Firawna jamono yooyu kàttan gi bari na mboolo bi ànd ak moom bari xam-xam bi bari gànnaay yi bari armeem xarañ Musaa ñëw taxaw moom kese ànd ak Aarona yore ab yatam soosu ne ko kot yàllaa mu yónni nee na nga goreel ñii nga xam ne ñooy bani Israël bani Israël nekkoon njaboot goo xam ne njaboot gu bari lañu woon macha allah Firawna ak waa këram jël leen di leen liggéeyloo def leen jaam ñu koy tabaxal di ko goral di ko yettal di ko bayal mu ne Musaa ñii nga xam ne kat ñoo may liggéeyal duma leen goreel duma leen bàyyi ilaa yow mi diidi samay jaam lañuy doon yàlla sunu borom ne Musaa taxawal ci kanamu Firawna doo jël xeej doo jël benn gànnaay wante sama tur ak sama kàttan ngay jëriñoo jàmbaarloog Firawna yàlla sunu boroom tàmbali di wàcce ay mbugal ci biir misira ci kaw njabootu firawna mu doon mbugeel yoo xam ne mbugal yu bari la yàlla sunu boroom jël dex boobu nga xam ne ci la lépp lépp lalu woon ci biir misira muy dex googu ñu naan la nil yàlla sunu boroom ne Musaa demal boo ci dóoree sa yat wi dana doon deret ba kenn dootu ko mën a jariñoo bi Musaa defee lu mel noonu Firawna xol bi gën a dëgër mu ne ko ay la yéwén bani Israël duma leen goreel duma leen bàyyi yàlla sunu boroom di def kéemaan yu mel noonu di wàcce ay mbugal yàlla sunu boroom lëndëmal Misra ba kenn gisul yàlla sunu boroom wàccee fa ay mbott ba ñu dugg ba ci biir néegu Firawna yàlla sunu boroom wàccee fu lu mel ne ay yamb ñu ñëw di màtt waa njabootu firawna yàlla sunu boroom def ay kéemaan yu bari wàccee ay mbugal yu bari téere bu sell bi dañuy wax ne xolu firawna di gën a dëgër saa su mbugal wàccee yàlla sunu boroom won firawna kat ne kii jëmm ji taxaw sa kanam di Musaa maa ko yabal te li muy wax man maa ko ko waxloo te muy dëgg firawna di gën a dëgër xol di gën a bañ di gën a ñàkk dégg li ko yàlla sunu boroom doon wax bi yàlla sunu boroom nag demee ba gis ne kat firawna mi faaw mu won ko loo xam ne bu ko gisee ca dëgg-dëgg dana goreel bani Israël yàlla sunu boroom ni Musaa jógal nga wax ak moom demal nee ko am na mbir moo xam ne dana ko wàccee ci kawam mbugal goo xam ne bu yegsee faaw mu goreel leen yàlla sunu boroom ne ba Musaa demal ci bani Israël ci sa xeet nga wax ak ñoom nee leen kat am na yoo xam ne war nañ ko def ndaxte mbugal gi may wàccee ci biir misra bu yegsee a firaw na dana leen goreel yàlla sunu borom ne Musa waxal ak sa njaboot waxal ak bani Israël ne leen danaa wàccee mbugal goo xam ne mbugal guy métti la ku ko gis wala ku ko dund wala sax ku ko dégg ca dëgg-dëgg dana dar loxoom ci gémmiñam te xam ne man maay yàlla man rek maa nekk mu ne Musa mbugal googu su ma koy wàccee du ci am xaj ak seen mu ne Musa danaa yónnee ab malaaka boo xam ne dana dugg ci biir Misra dana ñëw ba ci wàll gi nga xam ne fa la bani Israël nekk dana wër Misra dana wër wàll goog nga xam ne fa la bani Israël nekkoon te ñu tuddee ko woon Goshen mu ne ko malaaka boobu bu ñëwee dana dugg ci biir Misra képp koo xam ne taaw nga dana ko faat tàmbalee ko nag ci nit ñi jeexalee ko ci mala yi yàlla sunu borom ne Musa malaaka boobu bu yegsee du am xaaj ak seen dama koy jox benn màndarga boo xam ne fu mu ko gis dana jéggi kër googu du fa dugg du fa faat nit mu ne Musa neel sa njaboot neel bani Israël kër gu ci nekk nañu dem wut ab mbote nañu dem wut ab xar ñu faat ko tuur deret bi buñ ko tuuree nañu dem ci àll bi am na garab gu nekk foofu ñu dagg ci ay car jël car yooyu soob ko ci bool bi nga xam ne bu ñuy rey de xar gi fa la deret gi di tuuru ñu raatale ko ci lentu kër yi mu ne Musa bu ñu defee loolu dana mucc ci mbugal gi nga xam ne moom lay wàccee ci biir Misra wante képp ku ko deful mbugal gi dana wàcc sa kaw donte bokk nga ci bani Israël donte bokk nga ci njabootu Musa donte bokk nga ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla bëggoon a goreel yàlla sunu borom ne Musa mbote moom nga xam ne nag da ngeen koy rey bés boobu day doon xar moo xam ne mbote moo xam ne cër yépp day mat day doon mbote moo xam ne moo leen di aar ndax deret jooju nga xam ne da ngeen koy tuur deretu mala googu boo leen ko jëlee raatale ko ci seeni lentu kër doo leen layoo bu malaaka bi yegsee dana leen jéggi bu malaaka bi yegsee yërmandeem dana wàcc ci kër googu benn mbugal du fa yegsi bi ko yàlla sunu borom waxee Musa daf ko béral ne ko Musa képp koo xam ne bokkuloo wala defuloo loolu nga xam ne wax naa ko ah mbugal gi dana wàcc ci sa biir kër mu ne ko bu malaaka bi yegsee amul dara lu muy gis du ko bokk ci waa kër firawna du ci bokk ku bokk ci bani israel ngay ku weex ngay ku ñuul nga doon jaam wala ak koo mënta doon moom daal li muy gis mooy deret ji deret jooju kese mooy tax mbugal gi du wàcc sa kaw deret jooju kese mooy tax nga mucc bi ko yàlla sunu borom waxee noonu Musa Musa dem wax ak magu Israël yi ne leen kat farlu leen farlu leen te mbir mi ngeen defee ko ni ko yàlla sunu borom waxee mu ne leen kër gu nekk na ngeen rey am mala na ngeen rey am mbote ngeen jël deret ji def ko ci bool jël caru garab yooyu nga xam ne wax naa leen ko ngeen jël ko raatale ko ci seen lentu kër da ngeen toog guddi googu sol seen dàll takk seen digg pare seen bagage ndaxte bis boobu guddi googu la leen yàlla sunu borom di goreel téere bu sell bi di ñu wax ne bi ñu defee loolu nga xam ne moom la leen yàlla wax jaarale ko ci Musa ñu ne ci guddi googu malaaka bi dafa yegsi bi mu yegsee dafa dugg ci biir Misra bàyyiwul kenn mu faat ñépp ñi nga xam ne ñi nga fa woon nekk ay taaw tàmbalee ko ci nit ñi jeexalee ko ci mala yi ñu ne sax biir kër firaw na daf fa dugg def fa li mu waroon def ñu ne képp kër goo xam ne amoon nga deret ji ci lento yi nee na bis guddi googu daf la jéggi moo waral ñuy wax bésu jéggi ba mooy waral ñu ko tuddee bésu pak yàlla sunu borom ne bani Israël bés bu mel nii dee leen ko màggal bés bu mel nii dee leen ko fàttaliku ndaxte mooy bésu jéggi ba ba malaaka ba ñëwee jéggi seen kër dugg ci biir Misra dugg ci biir njabootu Firawna faat taaw yi faat doomu aadama ya nga xam ne ay taaw lañu woon ba sax faataale yi nga xam ne ay mala lañu woon te nekkoon ay taaw loolu moom moo doon bésu jéggi ba bésu jéggi boobu nag la kóllëre gu bees gi yàlla sunu borom di ko wax naan Christ mi dee ca bant ba moom mooy mbote moomu nga xam ne moom mooy mala moomu nga xam ne faat nañ ko dañ koy méngaleeg bésu jéggi ba kon mbokk yi ñu gis foofu ne lii ñu dippee pak da nga xam ne ci kóllëre bu yàgg bi bi ñaan ancien testament ñi ngi ko doon tuddee bésu jéggi ba lii moom mooy solo pak mooy guddi gi nga xam ne yàlla sunu boroom goreel na bani Israël mi nga xam ne ñeenti téeméeri at ñi ngi woon ci mbuumu jaam firaw na noot leen ak waa këram bésu jéggi ba mooy guddi gi nga xam ne yàlla sunu boroom yabal na malaaka bi ne ko dugal biir misira te nga faatal ma fa képp koo xam ne ab taaw la nga tàmbalee ko ci nit ñi jeexalee ko ci mala yi bésu jéggi ba mooy bés bi nga xam ne képp ku rayoon ab mala jël deret ji raatale ko ci say lento kër buntu kër bis boobu mucc nga bisu jéggi ba mooy bi malaaka bi ñëwee jéggi ñi nga xam ne amoon nañu gëm ba def sarax soosu nga xam ne yàlla sunu boroom digal na leen ko woon ñooñu nga xam ne seen gëm taxoon na ñu def lu mel noonu ba mën a mucc ci mbugal googu nga xam ne wàccoon na ci biir misira laaloon na waa kër firaw na bisu jéggi ba mooy bis bi nga xam ne yàlla sunu boroom dafa ubbi ab pexe yàlla sunu boroom dafa ne danaa ubbi ab yoonu mucc danaa indi ab pexe danaa indi ab yërmande boo xam ne ku ma déggal ku gëm koo xam ne am nga dégg da nga gëm da nga mucc bu mbugal gi ñëwee du wàcc sa kaw ba su jéggi ba mooy bés ba nga xam ne bani Israël def nañu ab sarax faat nañu ab mbote jël nañu deret ja tuur nañ ko seen buntu kër raatal nañ ko ci lento ya ñu mucc téere bu sell bi di ñu wax ne yàlla sunu boroom mi ngi wax ak ñun naan ñu kat maa ngi méngale faatu bi nga xam ne Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ faatu na ko ci bant bi maa ngi koy méngaleeg ba su jéggi ba ba ñu jëlee ab mala ba ñu jëlee ab mbote faat ko tuur deret ja def ko sarax jël deret ji tuur ko raatale ko ci lento yi yàlla sunu boroom di ñu wax foofu ne kon kat nekke faatu gi nga xam ne Seydina Isa almasi bi faatu na ko deretam ju sell jooju nga xam ne tuur nañ ko moom mi nga xam ne dafa matoon moom mi nga xam ne mësula jëng mësula tooñ mësula bàkkaar moom mi nga xam ne dafa setoon wicc nekke kat deretam jooju ñu tuur faatoom goog nga faat mu faatu nekke kat yàlla sunu borom daf ko soob mu def lu mel noonu ngir ubbiwaat bésu jéggi ngir won ñu waat yërmandeem ngir teg sunu kanam ab bunt boo xam ne képp ku ci dugg bu mbugal gi yegsee bisu pénc bu mag ba bisu layoo yow kat danañ la jéggi ndaxte yërmande yàlla sunu boroom dana wàcc ci sa kaw lii moom mooy solo pak kon bu ñuy màggal bés bu mel nii na xel yi dellu ci li nga xam ne yàlla sunu boroom def na ko li yàlla sunu boroom def nag daf ko soob mu def ko ngir rek firndeel cofeel gi nga xam ne am na ko ci ñun ni mu firndeeloon cofeel gi nga xam ne am noon na ko ci bani Israël ba ne kat gis naa nootaange bi ñu teg seen kaw gis naa ni ngeen loofee gis naa ni ngeen sonnee te danaa wàcc danaa leen goreel doomu aadama sonn na doomu aadama loof na doomu aadama sonn na doomu aadama loof na bàkkaar bari na doole ci biir àdduna jëf yu ñaaw bari na doole ci biir àdduna saytaane ngi laam-laame xol yi ëlëm ñu ba nga xam ne tey jii lu ci nekk yu nekk ñi ngi ciy dugg boo ko jëful sa xelan koy màcc di ko xent saytaane bari na doole ba nga xam ne bari na ñoo xam ne tey jii ñi ngi ci loxoom bari na ñoo xam ne sax dëgg la ne ñi ngi naan gëm nañ ci yàlla ñi ngi naan ñi ngi wéetal yàlla wante boo xoolee xol yi boo xoolee jëf yi boo xoolee jukko yi dëppoowul ak li nga xam ne moom la ñu séntu ci ko gëm yàlla doomu aadama toll na foo xam ne mënatul boppam mënatul dara boppam doomu aadama toll na foo xam ne dañ ko jiital doomu aadama toll na foo xam ne soxla na ku ko goreel yàlla sunu borom gis lu mel noonu cofeel bi mu am ci ñun nekk foo xam ne cofeel goo xam ne foo ko takk weesu na ko mu ne kat danaa wàccee koo xam ne dana ñëw ma def ko ab sarax mu doon ki nga xam ne moo leen di ubbil buntu mucc moo leen di ubbil yoonu njub kooku moo leen di dugal ci yoonu texe yàlla sunu borom ne danaa ko def ab sarax yàlla sunu borom ne danaa ko wàcce ci àdduna ñu tuur deretam sonal ko loofal ay cëram ma jublu ci lan mu doon ma méngale kaag mbote googu nga xam ne faatoon nañ ko ci bésu jéggi ba nga xam ne moom moo doon pexe mi ma tegoon ngir bani Israël mën a mucc Seydina Isa almasi bi Yesu Christ di bunt bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom ubbi ngir doomu aadama mën a mucc doomu aadama mën a texe moo tax téere bu sell bi di ñu wax naan bu ñu xoolee ci kóllëre gu bees gi bu ñu naan nouveau testament ci xaaj bi ñu jagleel yahud yi mu nekk ci aaya fukk ak benn nekk ci saa ñeent fukk ñaar fukk ak juróom-ñett yàlla sunu borom di wax foofu ne kat ngëm moo tax ñu faat ab mala jël deret ji raatale ko ci lento gi ba ñu mën a mucc yàlla sunu borom ne ngëm ci kaw ngëm la bani Israël defee lu mel noonu déggal yàlla seen borom déggal yàlla sunu borom ba mucc ci mbugal googu nga xam ne wàccoon na ci biir Misra nee na ngëm yàlla sunu borom daf ñu sampal Seydina Isa almasi bi ne ñu kat gëm leen ci lii nga xam ne def naa ko ci moom gëm leen ci lii nga xam ne liggéey na ko gëm leen ci deret jooju nga xam ne tuur na ko kenn du ko laam-laamee soob na yàlla sunu boroom mu tuur deretam ci bant bi soob na yàlla sunu boroom ñu loofal ay cëram ci bant bi soob na yàlla sunu boroom mu nekk ab sarax sarax soosu nag firndeelul dara lu dul cofeel bi nga xam ne mbëggeel gi nga xam ne yàlla sunu boroom am na ko ci ñun ñi nga xam ne daf ñu sàkk ci doomu aadama ndax naa ko sànq nee naa kenn du ko laam-laame ndaxte soob na yàlla sunu boroom mu jël ki nga xam ne dafa nekkoon ak moom ki nga xam ne ci njalbeen moo nekkoon ak moom moo doon kàddu gi nga xam ne lépp lu ñu sàkk ci kàddu googu lañ ko sàkkee mu jëmmal ko jox ko ay cër mu wàcc sunu biir mu def ko yoonu mucc mu def ko yoonu texe mu def ko yoonu njub mbokk yi may déglu lii nga xam ne yàlla sunu borom def na ko li koy matal ak lii tax ñu jot ci mooy ngëm moo tax yàlla sunu boroom nee na bi mu yónnee Musaa ci bani Israël ne leen kat lii laa nar a def lii mbugal gi laa nar a wàcce ci biir misira téere bu sell bi di ñu wax nañu dañ ci ànd ak ngëm dañ ci ànd ak pasteef dañ ci ànd ak dogu dañ nekkat lii nga xam ne Moussa wax nañu ko te nee na ci yàlla la ko jëlee lii danañ ko dégg lii ànd nañ ci lii danañ ko jëfee moo tax bi malaaka bi yegsee dafa jéggi seeni kër layoowuñu mbugal gi wàccul ci ñoom wante dugg na ci biir fi kaw firaw na def na fa lam fa waroon def ñi nga xam ne nag gëmoon nañu ñooñu mucc nañu ci mbugal googu yàlla sunu boroom bés dana àtte doomu aadama bésu pénc am na te soreetul ndaxte bu ñu xoolee ni àdduna di doxee ak màndarga yi nga xam ne yàlla sunu borom jox nañu ko te mu nekk ci téere bu sell bi nee na ka ah farlu leen ndaxte boo leen gisee lii ak lii am xam leen ne soreetuma bésu pénc bi soreetul te firnde yooyu nga xam ne joxe na ko woon ñu ngi koy gis mi ngi wàcc bu baax ci biir àdduna nee na bàkkaar dana toll foo xam ne dana jéggi dayoo nee na bu boobaa xam leen ne soreetuma bu ñuy xool àdduna ni mu demee muy ci fii Sénégal ak dëkk boo mënta jël dañuy xam ne ci dëgg-dëgg nit mi ngi dummooyu yàlla nit mi ngi gën a sori yàlla bu ñu gisee nag firnde yu mel noonu kon war nañu farlu parce que yàlla sunu borom nee na boo gisee firnde yooyu farlul ndaxte xam na kat ne soreetuma nee na nag bis bu ma yegsee képp koo xam ne làqu nga ci deret jooju nga xam ne jëmm ju sell jooju di Seydina Isa almasi bi Yesu Christ tuur na ko ci bant bi kooku dana mucc nee na képp koo xam ne am nga pasteef képp koo xam ne farlu nga képp koo xam ne dogu nga ba daw làqatu ci deret jooju kooku da nga mucc ndaxte deret jooju kese moo leen mën a muccal Seydina Isa almasi kese moom moo mën a muccal nit moom mooy ki nga xam ne ku làqatu ci moom texe nga moom mooy ki nga xam ne ku làqatu ci moom texe nga te yàlla sunu borom moo dogal lu mel noonu kon mbokk yi ma doon déglu loolu mooy solo pak loolu moo tax téere bu sell bi di ñu wax ne ah kooku nga xam ne faat nañ ko ci bant bi muy Seydina Isa almasi bi Yesu Christ moom moom la ñuy méngaleeg mburtu moomu nga xam ne faatoon nañ ko ci biir misira te mu doon mburtu mi nga xam ne moom moo taxoon bani Israël mucc ci mbugal googu nga xam ne yàlla sunu borom wàcc na ko woon ci biir misira kon ñu fàttale leen sunu numéro de téléphone bi nga xam ne mën ngeen ci jokkoog ñun muy 77 0 74 35 35 77 0 74 35 35 kon mbokki auditeurs yi yàlla nañu yàlla sunu borom dimbale ba nga xam ne lii nga xam ne ubbil nañu ko mooy yoonu mucc ak yoonu texe ñu farlu bu dugg ci ba jël yoon wi nga xam ne umbil nañu ko te yoon woowu du kenn ku dul Seydina Isa almasi bi Yesu Christ yàlla na yiwu yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yesu Christ wàcc seen kaw amin mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.